gàmmu si maam maam si loo ne sama waa ji otoraay bu jubee gaar day corne maam Ndiaye ñëw na yaay sëñ fa moom lañ doon xaar ay xam na ne da ngay ñëw bu tànk tànk la ko ay wax tànk la ne tey damay am yaay mooy ñëw man la waaw ah kooku sama xarit la. defal la nii. waaw yaa ngi moom soo neexee dafa yow soo neexee dafay jël. mais maam nañu ko may kii rek maam maam. su digganteeg Aziz ba Aziz jël kàddoom wax ma loolu tey. wala sëñ Fall. su digganteeg Aziz. kontaan. waaw ndax daa mu bu nekk. bu dinaa ñëw. waaye bu maam léegi bu sama xarit la. waaw bu muy sama xarit léegi. dégg naa la tey bu ma tànn. maam kañ laa koy ñëw. mais mais maam tey. nga ñëw Kër Masar. mooy sa première fois dinaa mel nii. waaw maa ngi doog a ñëw. sa a ak Aziz Sénégal yëpp. xam nga loolu moom Aziz rek. teewaay bi tey ak li nga sant. waaw Aziz dafa baax. xam nga ni bu wootee gàmm sant yonent bi ñun ñëpp baax a baax di kontaan. di kontaan baax a baax. waaye li ñu ne dafa. waaye li yow duma la wax dara tey dama kontaan ndax ku bëgg Aziz moo bëgg la Yeah.

المختار في الخير هو جزيا أبدا محمد المختار في الخير بالمزايا ويوم تغني من مزايا الفور

بلا خلوة أحسن أصحابه هل نلحق استرحامه يا لله ما خالف وإن المعنى إلى أحكم بالمعصايا يا وإمران خليفة ويا ويدي فتن أو أحد سكنا سكنا

Oh, such a خليفة كان جود حسن بابا أيوة خليفة كان جود حسن بابا ليل الليل لقد كنت جود حسن أيوة ليلى سلطان جوزل جود حسن ليلى لا سلطان جوزل جود حسن I'm not Oh, Karzi digal naa la ku ci bëgg si naa la kër si jugal taxaw jugal kër digal naa la ku ci bëgg si naa la kër si jugal taxaw kër digal naa la kër si naa la kër digal مؤمن mbay naa àndal ku la way naa nii Fallu ana ñu fi bëgg Alaaji Fallu ñi toog di waxtaane bur buy tar tar bur yow laa toog see jàmbaar la

ku leen di dafay mel na neex waalo waalo bi ana waa kër sëñ Baba yow taara bi góor leen di góor góor si taara bi yëndaale maa yow taara bi yëndaale maa waaw waaw yëndaale maa kamu leen di dafay mel na neex waalo waalo bi

ana waa kër sëñ Babacar daanaka joxew ñu màggal bër gi daanaka waano waano daanaka nga sëñ may di sa waay léegi ku koy jëmmi kay loo di ragal ak tiitoo Sampai yang lain sejumlah gobi Ada sampai sih kau Khalifa may kamala Olu Medina gana Oh kamala Eh kamala Yo kamala Dutan ngaji ngaji Kana tiga Cuma jadinya Jangan jadi kenapa Cuma mampu lelah

عزيزا مانتي جانا مانتي جانا تنتر قدينا بسم الله مي بقوي واجي جرتي وي أبدا وخبر جمعي بقوي موي أمين تتواوى أنا سبحان قولي أبطل عندي bismillah yi may bëgg way waa ji jar di way abadan boo xamul ki may bëgg way mooy amin ca Tiwaawan yow la ñuy tiitaroo yow la ñuy leerloo yow nu jëm waay di la way biir ci waawan damay ñëw dafa biir décembre këru diine yi bu sañoon am ku mel ni yow Sëriñ Babacar Si ñu la tànnal amiin ci ci waawan

dugal gi sax na yàlla na nga am balaa déwén ci wàllu kër gi yow ci yow ci doom yëngu seen cër ci biir yëngu wul yi mooy njëkk a jóg taxaw. wa sayyidil aaxirin. fëkk dënnam ni ana awwalu naas. musnadi. koo xam ne moo nuy jàngal téere yi fiq mantiq usul bayaan Alaaji Malick la. wa man lii. wa man lii Alaaji Malick dem na. bi madhil fiq. koo xam ne moo nuy jàngal fiq. wa naxwi. di ñu jàngal naxwu. mantiq. di ñu jàngal mantiq. bayaan. di ñu jàngal

من زاره بسليم قلبنا لقنا xool leen écran bi xool leen écran bi borom Sacré yàlla baa ngi nii. waaw xanaa bëgg leen Serigne Babacar. borom man la bu njëkk baa ngi nii. ani bëgg Serigne Babacar. kii moo ci doon dar. borom ma ne gaare bi. yebal dar màggal dar. wa inna ni xat kuntu min ahli dari ومسكني بها لدار أنكار اسمان أربعون فرسك على معنا لنمرة الدار إذا رمت المدد مدد رمت مام خليفة أسس يا ولاي ويا مام خليفة أبكر ذي جنة على جار i sek maam xalifa doxati ko yow yaay borom xalifa ku bëgg sëriñ Babacar Si jugal taxaw ah yow xalifa bayu masata bayu aziz mam khalifa bayu bayu jayyel lay fegal mam khalifa kon dama bëgg ñu ñëpp ñu àndandoo ni man sarahu bisri xam ngeen ku wax lii. waaw. su ma nee borom daara ji sa ci boo toogee ci du Serigne Babacar Sy boo am na nga yëg ni loo ñaan mu nangu nee na bul fàtte xorom da ngay xoromee si cin la ndax sëñ Babacar loo fa ñaan mu nangu. Mansour nee na boo masaana ñëw ci saalu Sëñ Babacar Si kajoor kajoor yi toog taram bi da kajoor Serigne Mansour nee na boo xamul Sëñ Babacar laaj ko ci kajoor taram bi da kajoor njaabur wa fuut ak yow waxaat ko waxaat ko waxaat ko mooy borom daara ji borom daraa yi borom diine ji borom daaru yi borom daama yi borom mu dikk mu ma dem sëriñ Mansour borom paase ma kay bay sëriñ Habib nee na taral Sëriñ Mansour nee na góor gii nee na saalu sëñ Babacar boo duggee da ngay fekk kajoor kajoor yi toog Pape lu mu wax taral bi laa da taral kajoor njaamur wasmu jolof njàmbur wa jolof ana njàmbur njàmbur yi njàmbur wa ak jolof jolof saalum saalum bawol ana saalum saalum yi saalum saalum bawol saalum bawol waa Gabon asaa lil qiyaa sëñ Babacar Si nee na li ñu naan sàmba mënul kanamam mën gannaawam nee na boo ko dee wax nañ ci kàccal sëriñ Babacar sëñ Babacar mën na kanamam mën na gannaawam Serigne Babacar Sy. yàlla élection daa jot. am ku ñuy wax Lamine Gueye. ca yooyu jamono. baal ma woo ko baal ak Senghor. ñoo dem élection. Lamine Gueye jox rendez-vous Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy toog di ko xaar Lamine Gueye ñëwul Senghor yëpp ni Lamine Gueye daa faussé rendez-vous Serigne Babacar Sy Senghor taal otoom ñëw ci waawoon ne Serigne Babacar Sy catholique laa mais gëm naa ni loo ñaan yàlla mu nangu dama bëggoon nga ñaanal ma ma gañe yi sama digganteeg Lamine Gueye ah loolu neex na de booy. sëñ Babacar Si ni ko tàllalal sa ko tàllal sëñ Babacar Si ñaan ba mu yegg ne ko bul ñibbi jiwalal Touba te boo demee daa fa fekk ku ñuy wax Serigne Fallou soo demee ne ko Babacar Si man la ànd ñaanal ma. mu dem fekk sëñ Fallou toog mu jox ko loxoom ni ko sëñ Babacar Si ma fi yebal nee na naa la wax ni élection yi mën la àndal. sëñ Fallou ni ko tàllalal mu tàllal sëñ Fallou ñaanal ko ni ko mbër mu baaba kër si ngemb man Fallou mënuma ca lu dul jox la sengoor te la sengoor neel fenn ca kaw mbokk yi ca yooye jamono amoon na benn nitu yàlla bu nekkoon ci réew mi moo ëppoon ay jinne ci Sénégal bi mu déggee ñu ne sëñ Babacar Si nee na dana fal Senghor mu ne ci konturam sëñ Babacar Si moom dana fexe ba jinneem yépp mu wutal leen ay carte électeur bu élection yee jotee ñu voteel Lamine Gueye pour mu tuxal waxu sëñ Babacar eh, euh, ñu ñëw fekk sëñ Babacar ci balcon bi muy doxantu si di faagee dem ba ma ca jawaar xam ni moo daan bind di boole français ak wolof waxay suma laqaytu minhum waahida يقول ما إبا يكون شاهدا إبا لدى وداعهم معروف سيسي ووي وي لدى التحقيق قول وعمل وذاك دأب مثبت مع باسكو وسدد الحديث اللفظ أزكى سيدنا حبيب أجزل كل الورى ma di Sénégal gépp li mu am ñu ko amee koy jox Seydil Hadji Malick Seydina jaza kulla wala deuxième ko bàyyi Serigne Saliou Mbacké Abdoul dogaloon na Pape Malick micro bi mu wax ko kuy El Hadj Malick nga dem ak moom ci première partie bi. waliyu. ana soppi si biir xarit Malick di leen taxaw. ana soppi si biir xarit Malick. ma yor nëbbu ma ko dama koy wane. sayyidil aaxiri fa ajaza kullal wara. ku ma la wax ni la nopp naa ko ku dul kii dama lay nax. sayyidil aaxiri fa ajaza kullal wara nabi. ne maa yëg na ne man Modou Fall sama xol bi kii laa ko jox. fii xam ngeen nu muy demee. لدي رسول الله سيد المجاهدين ما عجز كل ولا نبي ورمي الفرد دما كوي جوخ سيد الحاج مالك سيد الاخرين ما عجز كل ولا deuxième partie bi ma jox ko bàyyi Serigne Saliou Mbacké Ahmadoul Khadim سيد الاخرين ما عجز كل ولا نبي waa amat xoolal ma Pape Malick micro bi mu wax ma kuy El Hadj Malick ma dem ak moom ci première partie bi. wëy ana soppi Seydi El Hadj Malick bi ñu taxaw ana soppi Seydi El Hadj Malick ci wëy. balaa maa firi li Pape Malick ci wax kuy taalibe Cheikh dugal taxaw. wëy bu ngeen jugul taxaw du ma ko firi ñu ngeen taxaw. wëy waliyun Cheikh Seydi El Hadj Malick. mam Alioune Gueye mam Rawane Ndong ma di El Hadj Malick yaa ngi ko. manaari diine ala rifa. nahnu jitna nahwahu min taallumin. ida nahnu jitna nahwahu min taallumin. mam Alioune Gueye nee na sëriñ bu baax. waman lii waman lii. waman lii El Hadj Malick yaa ngi ko. nee na Seydi El Hadj Malick moo ñu daan jàngal xaw ma ba ja ta wa muy tagu ci yoon. waman lii. Alaaji Malick demee fan la ñuy jëlee tee. istadraasi kitaabi wa muhsunani. koo xam ne moo ñu jàngal téere yi te man def ko suñu bayaan Alaaji Malick la. wa man lii. wa man lii Alaaji Malick dem na. bi ba lii fekk. koo xam ne moo ñu jàngal fekk. war na fi. ñu jàngal jaxu. man seetee ñun rek ñoo am bàyyi ko sax baara maam yi dañ ak Cheikh Mbacké. góor gi Tawloo Moustapha Thiat loo Murtada borom xarajtu yawma sabti saamina achara li xidmatil muxtaari fi sahri safar borom rabbi bi ma yasraxul azhama qad fajaa bi jaahi afdali man lillahi qad lajaa borom xut ummatal Mustafa an kulli mafsadatin wal tarxamil xalqa yaa man jadduhum badaa yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin ñu laaj baayu Serigne Fallou mu ne irham jamii al wara yaa haadiyan radaa kookoy Ahmadul Xadim mbokk yi tey jii ñu ngi ci guddi sangu àdduna ak alaaxir wax naa la léegi ma ne la ñun di képp dong ñoo am Sëriñ Tuuba tubaab bee ko convoqué ni ko dama lay génnee réew mi boo xamoon may kan danga ma ragal maa rey Lat Joor maa génne Alburi Sëriñ Tuuba ne ko baatu ragal kenn laa ko def ne ko latta ataafu durra xalqin maa dama fa wattu amri ilaa rabbi sama mbokk yi Cheikh Ahmadou Bamba moom la tubaab bi dugal ci biir bato bi ni ko dama lay sànq yokk aliiru bato ni ko julli jot na te boo julliwul tooñ yàlla te boo jullee ci gi tooñ ma boo jullee ci bato bi tooñ ma boo julliwul tooñ yàlla Serigne Touba nee na ma yër ci fenêtre bato bi yëg ni tubaab bi yokku na aliru bato bi Ahmadu nee na ma wax ak ndox mi ni ko wasiqtu bi rabbil arsi sil juudi wal afi ma al Mustafa wallahu muxlidun safli sikki sikki sama jëbi takk suuf bomb ko ci sama digg gannaaw man Malick Fawad Wele Seydil Hadji Malick mbokk yi réew mi rek ngay ñëw fekk fi gën yi isnaani wa zaaka la li nuurati daari isa mulkal madad waaye mbokk yi xam ngeen ni yàlla bind ku ci gën rafet alhamdulilah yenn saa yi nga dégg gars yi seen jëkkër yi naan leen le prix beau jërëjëf ma ne ko juum nga parce que prix dafa toog ak soxnaam suñuy wax sayyidatuna Aïcha ñuy waxtaan ñoom ñaar jékki-jékki sondeel bi ñu taaloon ñoom ñaar sondeel bi fay sayyidatuna Aïcha nee na ma ne ko nabi tey ngaa bàyyi ma dem wuti sondeel taalaat ko nee na Rasulullah yi ni ko jaru ko mu ne ko kon lu ñuy niitoo ñoom Makka xar gémmiñ gi ubbi gémmiñ gi ba ñuy ñoo gën a wex Allah akbar ñu mel ni ku nekk ci bëccëg ah, tey fekk na Aysa doon ko laaj naan ko yàlla Yuusufa ko dàq damay dégg alxuraan di tagg taalu yonent yàlla Yuusufa naan fa la mën a ay ak li bëri na ko ba tax na ay jiw yëngu na waxuñ na alhamdulilah yi ma haza basara. allahu akbar allahu akbar. ولقد راودته عن نفسه. الله أكبر. ولئن لم يفعل ما آمره. وليكونن من الساخرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن ما شاء الله. ma gis temps bi yàlla def ci. ma sha Allah Yuusuf may laaj yàlla Yuusuf ko gën a rafet. allahu akbar fii ñu toog may waxtaan sondeel ba ni karak Sayyidatuna Aïcha jóg di wuti sondeel yow naa ko ni ko toogal jaru ko mooy bañ ne gën a leer perkal ñu mel ni ku nekkaat ci bëccëg Aïcha ni ko jox ma loxo wa ajmalu minka lam talid an-nisaa anta misbaahun kullu fadlin kullu fadlin fama taas durul illa durul illahu an mais ñi xasal ñoo kenn du leen yokk. moo tax ñi gàtt ñooñu nar a tànnee ëllëg bu ñuy dugg àjjana ndax fokk ñu yokk seen doolaay yi waaye mbokk yi fii temps bi toll. bu ngeen waxul Aziz mu nangu dina yàq gàmmu ne. ma ni si heure bi toog waaw gars yi réaction Aziz nu ngeen mën jëndi ah gars yi waaw maa ngi rek ma ni waaw Seydina ah ah ah baaxut maa xam ma sata dama lay jéggulu yaa ma yëngal te ku yëngu ba yëngal nit da nga laa tekk mu yëngu maa ngi lay siyaare bu baax yokk soo métti man Aziz mii Màkka la ma xamee teral ma teral teral ma ko teral nga joo xam ne nit ànd naa nit fukki at te mu ko maa la bëgg maa sayyidil mursalin mbokk yi deuxième partie bi xam ngeen lu muy demee. sëñ bi laa xiir ba ajasat kul alwala. magi Sénégal lépp li nu am ñi ngi ko amee ci daraja Rasulullah. sëñ bi mu jaay di na ajasat kul alwala. madame Fall. première partie bi dama koy jox Seydi El Hadji Malick. sëñ bi laa xiir ba ajasat kul alwala. deuxième partie bi ma jox ko bàyyi Serigne Saliou Mbacké Ahmadoul Khadim. micro bi mu wax ma kuy Alaaji Maalik ma dem ak moom ci première partie bi. muy taalibe Cheikh Diouf taxaw waaye balaa ngaa sori. waaw. ma jotal la yóbbante. waaw. Abdou Aziz Ndiaye bii toog. waaw. ni nga seddalee xolu njaboot. bu gàmm gi weesoo. dina la yóbbu Màkka nga ziyaare ji Seydina Muhammad. Abdou Aziz nee na da ngaa bëggal ñëpp ci guddi gi te ba tey gisagoo rasulullah waaye neena bu kam gi weesoo dana fexe nga gis rasulullah yi mbokk yi asalaamaaleykum bu ngeen ma fay nuyoo maa ngi ñaan na ku nekk accolade ki mu dendal ne ko eh, ne wax moroomam mbokk yi guddi gii nu nekk mooy guddi gi gën ci guddi yëpp waxtu wi tembe ci la Aminatu bintu Wahbin doon yëg matu mbokk waxtu wii ci la sangu àddina ak àllaaxira doon waaj a àddina te mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi ko bëgg cameraman may ma tuuti ndax man damay xàll waxtu wii ci la Amina doon yëg mat yaa ngi saa li waaj a matu. kan la doon matu. Muhammad Rasulullah ki gën ci li yàlla bind muy sayyiduna Muhammad. fils. oh. bi sayyiduna Muhammad naree judd. bëccëg dañu yàlla dimbali ma mu judd ci sama heure. guddi demandé yàlla. ne ko dimbali ma mu judd ci sama heure ndax bu juddoo ci guddi guddi dana mën a tiitaru ci bëccëg bu juddoo bëccëg bëccëg mën a tiitaru ci guddi yàlla ni bëccëg duma la ko jox ne guddi duma la ko jox dama koy jox fajar ngeen séddoo moo tax Seyduna Muhammad gane àddina fajar moom rek lañ mës a ëmb ba àdduna sosoo ba tey mu nekk ci biiru yaayam kobas yaay ji ni ko yaay mu ne ko waaw mu ne ko heure sàngam lay judd ku yonent bi am na ko amina mu ne waaw mu ne ko waajalal sa bopp fajar lay judd waaye attention demal nga seet si ku ñuy wax Safa moo la war a réewle Amina ñëw fekk Safa toog mu ne ko bul teel a sa bunt lu mu guddi guddi danaa la fëgg ndax heure tel am doom mbokk yi Amina nee na yëguma mettit samay tànk diisul samay tànk diisul sama xel teeyul xoromuma dama jékki-jékki rek yàlla yónni malaaka ni ko jëlal sa bi raay ko ci biiru amina moom la sama am alaaji Malick naan janaaxa tayrin nafa maa hëla min jusud جناح طير نفى مهالة من جسمي سيد الحاج مالك نينا نبي بنوكو أمي بمو جدو يلا يبل ملاكا نكو راي بيرو أمينا مو راي بيرو أمينا سيدنا محمد جدو ndax yàlla wan na ko boppam yàlla wax na ko boppam nabi sëgg fi mu sëgg yàlla ne ko li ma lay tàggee yëpp li ma ci gën a neex ci rendez-vous bi mooy sa bët yi ni nga boo xooloolu wala xooloowul waaye Moustapha li nga xam ne maa gore li nga xam ne maa la bind te nga xam ne maa mën a fay damay bàyyi ba ëllëg ba jaam yëpp taxaw ci sama kanam ma door laa fay la ma soxla mooy ku ma sopp nga yóbbu aljana ku ma soppul nag ma bàyyi laa moom daal di jóg moom yëpp yàlla Muhammad ñu wan ko benn porte daal di ubbi ñu jëmm xool jëmm ji jëmm ji sut ko dàq ko mu wëlbati ko ni yàlla yaa waxoon ni loo bind loo bind maa ci dàq yaa waxoon ni loo bind maa ci gën a gudd yaa waxoon ni loo bind man maa ci gën a rafet te kii ma fekk ci biir moo ma dàq moo ma gën a ñool moo ma ëpp jëmm yàlla ne ko ki nga fekk ci biir mooy sa jëmm lii nga yor sa takkandeer la yow Muhammadu Rasulullah looloo tax Moustapha daawul am takkandeer ndax takkandeeram moo wàcc ci suuf te takkandeer du am takkandeer looloo tax yàlla Muhammad Moustapha am takkandeer ma wàccul ndax yàlla su ma wàccee woon jëmmi yonent bi ko teg bët say bët toj te bëgguma woon noonu ay jaam moo tax ma wàccee takka deeram di Moustapha su ma dekkalee jaam yi danaa taxawal ci seen kanam jox la sa jëmmi bopp nag nekk sa jëmm carrément de su ma dekkalee jaam yi ku la bëgg ma yóbbu ko aljana ku la bañ ma yóbbu ko safara lu tax mu ni leen bind nit ku nekk benn jëmm la jëmm ju nekk benn dënn dënn bu nekk benn xol xane ca xol bi lenn laa ci soxla soppal ko Muhammadu Rasulillahi soo ko soppee rek ma yóbbu la aljanna boo ko soppal ma seetaan la yaa ayyuhan nabiyyu ittaqullaha wala tuti'il kafirina wal munafiqina inna allaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbika inna allaha kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal ala allahi wa kafa billahi wakila ma ja'ala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi وما جعل أزواجكم التي ظاهر من موتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم سالكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي سبيلا أدعو لآبائهم واحفظوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اقتدتم به ولكن ما تعمد قلوبكم وكان الله غفورا رحيما kii ba leen di nettali moom la yàlla xool ba mu neex ko mu naan ko bu gaa yi laajtee mu ñëw ndax defaloon nañ ko sa maam di am lépp man maa koy def maa def saa yi kër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 يفترون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولو عذاب أنهم يكذبون تكبوا إلا شيء من هذا الدين الجد نقول وأي يوم لا يجب ndax lan Ali ibn Abi Talib li maa ko xam mooy annahu rasul rabbil alamina mooy qaidu hurril muhajjalina mooy saydi jamil anbiyai wal mursalina walladina kaana nabiyan wa aadamu bayna almaai wa tiini mooy raufun bil muminina mooy shafiu lmuznibina mooy rasulu ila kafati alxalqi ajmaina kama qala allahu tabaraka wa taala fi kitabi almubini ma kana muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasul allahi wa xatama annabiina wa sahibi alhawli almawmudi wa maqami almahmudi wa shafaati alhusna fi yawmi وفرع نزاري وحسب ابراهيمي وبقعه حجازي موي رسول ثقلين لا بطويل صاحبي ولا بقصر داني موي امير اللون مشرب بالقدره موي اسعد الرعيه موي اسعد الحرام موي اسعد الشراحين موي لا تحسب اليه لا تتحمل موي اسعد اليه يا Muhammad yaa leen gën yaa leen gën yaa leen gën ana ko sopp Muhammadu Rasulullah

min karibun abaahu rahmaanu sayyiduna Muhammad jërëjëf yaakaar naa Abdou Aziz Doucouré bi yàlla la yonent bi téye boppam tabarakallahu xaal bi nga jëlee macha allah anniversaire bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu tombee anniversaire suñu xarit ku sopp yonent bi di El Hadji Ndiogou Mbaye kon yàlla ko yàlla defal kilifa bi tam suñu mbokk yi taxaw Cheikh dana lay jox rek nga sant Aziz comme li nga doon wax ci tur xalifa daanaka ko ci teg ko ci loxo Masaka kon tabaarakallah boo ko defee deux minutes rek nga jox suñu mbokk yi nga leen cinq minutes suñu mbokk yi nga leen juróomi ndax heure bi daan fekk di tas bu ñu paree mbokk bi waxoon ñëw teg ko ci alquran ñu def ko xitaabu miskin bu passé commune Cheikh bismillah. waaw xaj Massata xam naa kàddu bi bu fi Aziz toogoon sax yow laa koy adressé ci turu famille suñu bàyyi xaj bay doole yëpp ndax bàyyaale yëpp xam nañ digganteem daal xaj bay doole. 1900 ndax bu ma nee bàyyi àll mooy yéen waaye yéen ñii yow Abdoul Aziz ak Baye Ndiaye. yéen ko recouvrer waxuma bàyyi la yónnee waaye xalifa mbay lu tedd la ni ak pambaay ku ci nekk yéen a yëkkati Abu Bamba jox te loolu nag teraanga bu la boo xam ne sëñ Babacar Sy radiyallaahu anhu daan na wax ni baadoo la rek mooy def na ko defal ku xam ni xam gis bu xam na waaye li ñu may yitte yëpp ngir wan leen li nga wax ne dafa yëpp ko ci biir ci yàlla yàlla fay leen yëpp barke yi ci subhanahu wa taala ñu wax ci jàng ko am yàlla yàlla fas yaa ngir fi may yaa rabbi yaa jaramay yaa Seexu Tijaan suuf ji mooy këpp ji xam-xam yu sell yi ji wërsëg yu yaatu yi est-ce que Seexu Tijaan suuf ji mooy këpp ji xéewal yu yaatu yu rëy ak wilaaya fi may yow Seexu Tijaan yoon leen ba dalal la baaraamu digal baaraamu deses di wàcc sa góor mboolem wàllu yi man naw naa leen ca yàlla bu baax gannaaw ba jaayante naa ak Seexu Tijaan yéen daal seeti xanaa bi doy na bette xanaa bi doy na Gracias. dimbali leen yi borom naaru góor yegsi na kii tax gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy Seydina usmaan Ndiaye borom naaru góor grand marabout di borom baatin borom xam-xam ak boroom xalwa Seydina usmaan Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bii ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di tollu nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane njaay naaru góor borom xalwa borom kurus mi ngi fii ci Nord Foire à Dakar arrêt 34 jàkkaarloog terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkalook banque CBAO bi Mérina ci wetu daral bi. mën ngeen a jokkoo kabineem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19 19.